asalaamualeykum mbokk yi la woon wonni na la woon wonni na la mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu jiital ci nuyoo bi suñu kilifa yi waaye di jaajëfal la jeunesse sénégalaise gàcce ngalaama yéen jeunesse sénégalaise ñoo ngi nuyu suñu kilifa yi ñoo ngi nuyu le clergé catholique ak mbooleem seen njaboot yi nekk ci biir Sénégal ñoo ngi nuyu le waa sacré ak mboolem seen njaboot yi nekk ci biir Sénégal waaye ñoo ngi nuyu mbooleem njabootu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci biir Sénégal muy association islamique yi muy turuux yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi Sénégal naxante bi fi nekk moo war a jeex le 23 mai fii lañ daje woon wax ni askan wi bëgguñu lu bon ndax seen ndono seen ndono lu baax la ñu wax ni agenda pro LGBT bi ñuy doxal benn pàcc la benn ci gis-gis bi nga xam ni dafa am ay nit yu jóg ci àdduna bi am une vision globaliste jàpp ni ñoom ñoo am xam-xam ñoom ñoo am dayo ñoom ñoo am taxawaay ba seen gis-gis yooyu ñëpp dañ ko war a nangu te topp ci ñu ni leen Sénégal moom du bokk ci lool Sénégal du ci bokk tey ndax Sénégal bokk ci woon démb te Sénégal du ci masa bokk agenda bi ñuy wax nit ñi nañu déglu bu baax ñun agenda la ñuy wax boo xam ne ñoo ngi koy doxal ci turu askanu Sénégal est que xam ngeen ni réew mi lu fi mën di dox est-ce que xam ngeen ni ci seen tur ak sama tur lañ koy def est-ce que xam ngeen ni lépp lu ñuy def ci as ci réew mii dafa mel ni askan wi lañ koy defal itam ndax principe bu gouvernement du peuple pour le peuple et par le peuple la kon ndeke lu ñu fiy def lu mu mën a doon képp ko toog ni sama yoon nekku ci xamoo li xew man yéen gàcce ngalaama la jeunesse sénégalaise particulièrement ak jigéen ñu am jom ñu am ngor ñu am fulla ñuy toog yéen jigéenu Sénégal gàcce ngalaama seen taxawaay rafet na dem seen taxawaay rafet na tey te incha allah seen taxawaay day wéy di rafet yéen xam ngeen ni du ngeen jur ay góor jigéen yéen juru leen góor jigéen ma ni yéen jigéenu Sénégal ëpp ngeen lool yéen xamu leen ak góor jigéen juru leen du góor jigéen yaru leen ab góor jigéen kon ñi am xalaat boobu nañ ko delloo fa mu jóge woon ñi am gis-gis boobu nañ ko delloo fa mu jóge woon man ñu am yitte jooju ak yéene jooju nañ ko delloo fa mu jóge woon dañuy wax question de droit mais droit finalement droit mooy lan et puis droit selon qui wala ñun dañoo doon ay nit ñoo xam ni dañuy toog rek pour consommer ay nit toog ca àll ba ñëw ni ñu daal àq ak yelleef mooy lii àq ak yelleef yow mi koy wax am na noo ko gisee noo ko déggee waaye ñun Sénégal am na nu ñu ko gisee am na nu ñu ko déggee la France est souvent citée comme étant un pays de liberté te pourtant bu ma fa demoon ni dama bëgg ñaari soxna ñun la tere nañ la ko ana man sama àq ak yelleef ana samay droit kon bu ñuy wax ay droit inaliénable de de l'homme nañu xam ni ba ñu koy tënk ma ni cher sénégalais chers africains booba boolewuñ ñu si mm-hmm. est-ce que dañu na fàtte ni 1948 bi ñuy def la déclaration universelle des droits de l'homme booba xaw fan ne waaye suñu réew yi ñun ñoo ngi ci kilifteefu tubaab bi boolewuñ ñu si ndax ba ñuy wax homme nit mën naa doon ku nekk waaye nit ñu ñuul ñi bokkuñu si kon lan moo waral ñu bëgg ñoo ñëw imposer ñu un agenda boo xam ni ñun bokk ñoom ñoom gis-gis boobu léegi monsieur le ministre mi ngi may déy ni ma mais au nom de la diversité culturelle mais kenn ku ci nekk am nga sa démb kenn ku ci nekk am nga sa aada kenn ku ci nekk am nga say valeur mais lan moo waral ñu jàpp ni ñoom seeni xalaat ay xalaat yu la seeni valeur valeur yu universelle la seen gis-gis gis-gis bu universelle la ci fan la tege ci fan la tege réew mii kenn du ko delloo ci buumu njaam du am mukk la woon woon ni na la woon won ni na la woon won ni na la woon won ni na la woon won ni na kon agenda bi nga xam ni ba ngeen seetloo ba ànd sàmm jikko yi jógee ba léegi amul ci Sénégal ji ku mas a taxaw ni agenda bi amul amul moom koñ ku ñuy wax da ngaa naan ñu sa sa weeri dëng yi mbaa sa sa dàll wu nangam wi waaye kenn ku mën a contester agenda bi amut kon agenda bi existé na waaye bi mu existé it dafa dem ba Sénégal nangu ko di ko doxal depuis 2016. dugal nañ ko sunu constitution est ce que xam ngeen mi ngi ci constitution bu Sénégal ma ni mi ngi ci constitution bu Sénégal danaa ko expliquer faram fàcce ko dafa am benn journaliste laaj ma ni ma noo alinéa 3 bu article euh, bu article 319 bu code pénal dafa wax acte contre nature léegi jàpp leen ni acte contre nature bi ñu koy jël ci 1966 bu 12 février 1966 boobu acte na contre nature góor jigéen ci la bokkoon waaye bi ñu demee ba 17 mai 1990 ci jataay boo xam ni ñeent fukki réew ak ñett ñoo ko séq te Sénégal bokkoon na ca ñeent fukki réew ak ñett yooyu. ñoo wax ni ngóor jigéen bokkatul ci acte contre nature loolu Sénégal bokk na ci ñi ko wax te xam ngeen loolu nan la demee par rapport ak suñu loi bi mi ngi mel ni ñu ni tey jotaay dafa am benn sees moo fi nekk benn toogukaay waaye préfet dana ñëw gouverneur dana ñëw président dana ñëw te benn toogoo fa nekk sous préfet dana ñëw ndax sous-préfet dana toog ndax sous-préfet dana toog lan moo tax du toog kon luy mooy sew-sew bi nu jàpp ni askan wi dañuy nelaw mooy loi bi ma wax loi ordinaire la loi ordinaire loi ordinaire loi organique moo ko tiim mooy kilifaam loi organique loi constitutionnelle moo ko tiim ma nga ca kawam te mboole seen i loi yooyu yëpp am na lu ñuy wax loi supranationale moo tiim mbooleem lu ñu voté ci Sénégal te lii may wax nii loi supranationale la constitution bu Sénégal dafa wax nii les traités et conventions régulièrement signés et ratifiés ont dès leur publication une autorité supérieure supérieure supérieure à celle des lois kon lu Sénégal dégganteeti ca bitim réew moo tiim loi yi mu fekkoon ci biir réew mi bu fekkee jaarale lañ ko ci procédure bi te ñañ ko seetal tamit doxal ko kon loolu moo leen di wax ni li ma njëkkoon a wax ci sama kàddu naxante bi dafa doy dañuy gëmloo ni ñun ñoo moom réew mi waaye moomuñu ko suñu falatee suñuy député ba ñu dem assemblée nationale voter une loi ñu sàkk ab délégation jël ministère de la justice ministère des Affaires étrangères, la direction des droits de l'homme du Sénégal, des ay membres ci cabinet bu président de la République ak ñeneen ñoo xam ni danañ bokk ci gouvernement bi bu ñu demee ba diisoo akub tubaab la ñu xaatim moo tiim li suñuy loi voté woon li suñuy député voté woon kon léegi ana ñun sunu moomeel yéen jeunesse bi laay wax ana sunu moomeel kon kon nekkate ay nax moo nekk ci réew mii te naxaate yooyu dafa war a jeex képp ku toog fii ci nga bokk ku fi toogul ci nga bokk képp ku am carte d'identité nationale ci nga bokk moo tax combat bi ñuy mënee nit ki sax dañ koo xamul man ni ku am di carte d'identité nationale ci nga bokk ku am certificat de nationalité ci nga bokk ku am wenn këyit wu lay wane ni Sénégal doomu Sénégal nga ci nga bokk ñuy kon ci turu askanu senegal yow yàlla sa ndigal loolu delloo nañ la ko yow yàlla sa ndigal loolu delloo nañu la ko may nañu sañ-sañ jigéen ju ko man ju ko bëgg kaay nga jaay sa bopp ñu defal la kayit wi nga téye te seetaan dong moo tax lii am ba jigéen ci tey sañ naa dem jaay boppam nangami yoon bis bu nekk bu ko neexee yor carte woowu ko askan wi jox mu jaay boppam xam ngeen lu muy neexale askan wi bu at mi deewee bu at mi jeexee bu at mi matee danaan njaaloo naa benn nangam nangam màngam ba x fois kon yoreel naa askanu Sénégal x franc multiplié par x fois yooyu dem versé ko trésor public day fay lépp alal jooju kenn ku ne fii ku ci mucc amul danañ ko def ci sénégalais yi fay ci bon delloo ko ci biir sénégalais yi te am na boroom xam-xam bu mag bu waxoon ni ku lekk lu xaram def lu xaram ku lekk lu ñu sib def lu ñu sib ku lekk lu dagan def lu dagan ma ni lii bokk na ci caaxaan yi nekk ci réew mii te la jeunesse actuellement est consciente de ces enjeux la jeunesse jóg nañ taxaw dem ku yaakaar ni réew mii naxe ak layam-layam yi dafa nekkoon day wéy ma ni nax nga sa bopp la woon woon ni na la woon woon ni na na gis ngeen alal jooju bu ñu ko defee ba noppi yamuñu ci xam ngeen ni carte yi dafa araam ñëpp ko xam waaye est xam ngeen ni am nañ tool boo xam ne ñun Sénégal yëpp ñoo ko bokk te carte lañ cee def la loterie nationale sénégalaise, l'ONAS, appartient à l'ensemble du peuple sénégalais. D'ailleurs, appartient à la nation tout entière. ñi nekk ca bàmmeel yi ci lañ bokk ñiy dund tey ci lañ bokk ñiy xaalisata ñëw ëllëg ci lañ bokk kon gis ngeen galgal bi ñuy def ko ci nit rekk toog yaakaar ne dara xewul te fekk na am na lu xew dama ne caaxaan yi ne ci réew mii dafa doy ginnaaw askan wi ñoo moom kay nañu fexe ba doxal li est-ce que ñu bëgg dama ni tey ñun bu daje woon fii kenn nit dong taxaw fi du tere li ñu bëgg wax danañ ko wax parce que c'est consacré par la constitution sénégalaise rawatina ba nga xamante ni kilifa yi ci réew mi yëpp am na ci rawatina ba nga xamante ni li yokk yaakaar di ko dëgëral te combat boo ko gis xam ni loolu combat boobu ca kanam la jëm muy jigéen ñii ak ndaw yi Allahu akbar Allahu kon ñoom nañ xam ni loterie nationale sénégalaise muy tool boo xam ni kon ñu xam ni kon ñu xam ni dama ni nax yi fi nekkoon moom wonni na LONASE dana dajale ay centaines de millions voire des milliards at mu nekk ci lu yàlla araamal ñu jël ko delloo ci biir askan wi ñu koy nekk ba noppi ñëpp jàpp ni jàmm rek a xew ci réew ji jàmm yàlla nañ ci yàlla musal xam ngeen dafa am loo xam ne boroom xam-xam yi dañ koy wax te mu mën koo tudd alxuraan feddali ko muy ñoom duñu denc di leen xeex ba bu ñu ko mënee ngeen génn ci seen pas-pas gis ngeen maslaa bi nañ mujjee maase lañu fi mu ne nit ñi dañuy ragal sax di assumer ni ay chrétien lañu wala ay jullit lañu au nom de quoi d'une pseudo-république boo xam ni jëlul en compte ñun suñuy aspiration dégluwuñ ñu te it bàyyiwuñ ñu xel très sax dafay mel ni mépris la ñu am ci kanamu askan bi la benn waay waxoon nee na askanu Sénégal comme ay ginaar lañu rek bu élection ñëweetee rek da ngay ñëw jël sa dugub suy reen rek jàpp def la nga bëgg a def daal di demaat sa yoon ma ni ko lawoon woon nii na lawoon woon nii na lawoon woon nii na loolu jeex na loolu jeex na fi loolu saye boo ñu xam ni jeex na fi kon nañu xam ni combat bii dafa am ñaar yu taxaw ci suñu kanam ñi ñuy interpellé ànd sàmm jikko yi xanaa ñoom ci ngóor jigéen rek la ñuy wax ndax xam ngeen ak toogu damaa xamul nu ma koy waxee mu nit ñëpp comprendre waaye nit bu bëggee toog fi muy toogee ak toogukaay ak toogukaay du xam ngeen ko du toogukaay xam ngeen ko wennu toogukaay mënta warandoo ñaari mbaam wennu toogukaay mënta warandoo ñaari mbaam lii dafa jant lii dafa jam kon faw taxaw ci pour wax leen nañu arrêté agenda bii waaye yamuñu ci loolu bi agenda bi ñu ngi koy dugal ci école bi wane nañ ko fi léegi agenda bi suñu assemblée nationale bokk na ci PCA wax nañ ko fi léegi agenda bi même gouvernement bi décliné ko à travers la SNEC 2 muy la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre seen vision jëm ci 2026 soreetu waaye agenda bi foo wëlbatiku foo xool da nga koy daj la waaja waxoon nag ñun dañuy xaar ba yëf yi wasin ñun xaaruñu ba wasin di am ndax xoddiku bala ngaa lakkale xoddiku bala ngaa lakkale ñun duñu xaar ba ñuy nekk ci le fait accompli ñu koy constaté comme yii ma fi lim léegi nii dañuy jóg gàttandu ko ni lii bëgguñu ko ci réew kon nañu xam ni yéen askanu Sénégal wàcc ngeen askanu Sénégal wàcc ngeen ndax li ñu waroon a def lépp def nañ ko combat askan yu approprié nañ ko ànd ak ay yoo xam ni yell na ci ñu xam leen te tudd leen ñoom ñuy ay jàmbur mooy député yoo xam ne bi ñu yëkkatee combat bi ñoom la yoonu Sénégal may ni ñoom dong ñoo ko mën a porter